ابني مقاما لا يرى سرواه ربي بلا إله إلا الله أعلنا بالله أن سواه الذي يوفي الصدور الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن اللهم ربنا تقبل منا خطأنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة من السهو ونسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تأجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان ووقف بغير واقف أو إدقام بغير مدقم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إراب غير مكان فاكتبوا منا على التمام والكمال والمهز من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا ارزقنا فدل من قرعه مؤديا حقه مع الأداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والدلال والطغيان ونبينا قبل المنايا عن الكسلان <clears throat> الكسلان أمنا من عذاب القبر وعملنا وعملنا وعملهم من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أهل الديدان يبين وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسير حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا وارزقهم جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بدعاء يا رب أستجب دعاءنا في بحق التوريث والإنجيل والزبور والفرقان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 وبيننا وبين النار وبين الناس سترا وحجابا إلى الخيرات كلها دليلة وإماما بفضلك وجود وكرم يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وآفنا بإناث القرآن ونجينا من النيران بكرمة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن هذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن هلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نفس نعمة وبكل ربع رفعة وبكل هم هناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء صوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالدال يكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين صناعا وبالشين شفاعا وبالساد صدقا وبالدال ضياعا وبالطاء طهارة وبالزاء زفرا وبالعين علما وبالقين قناعا وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام نطا وبالميم موئزة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام لقعا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام إلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين إلى روح عبدك بن عبدك مامون بن شيخ الحضرام والأتقان والصعد وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى جميع أصحاب المؤمنين والمؤمنات جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ويجعل أجمعين عامته إلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمن والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون قرأ آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين lii yonent bi waxoon rek xubbul watan min al iman dafa bëggoon goxam ndax bëgg sa réew si ngëm yàlla bokk nga ñaanal gox bi si sa barke maam sa barke baay yal nañu yàlla barkeel njaboot gi yàlla aar leen aaxiru zaman la ñu nekk musiba yi bare nañu euh, accident yi bare nañu feebar yi bare nañu nga ñaan si bés bi yàlla nañ si yàlla musal musal suñu njaboot musal si bépp julit musal si bépp taaliba Cheikhna Cheikh Saad Bou ak beneen nitu diine bu nga xam ne yaa Sénégal nga ñaanal leen bul fàtte it daara jooju ñu la fa diisoon nga ñaanal sa barke maam yal na yàlla yéwénal mbiru daar jooju nga ñaanal Cerno Malick mii di sunu waajur di sunu sëriñ yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla yàggal ko fi Cheikh Assane mi nga xam ne ku ko xool xool na sa turandoo Cheikh Hadrami wul Cheikh Kaana wul Cheikh Saad Bou wul Cheikh Mouhamed Fadel ku ko xool rek gis nga ni góor gii góor gii góor la góor gi am na fu mu nekkoon góor gi am na ku mu doon àndal ku xool Cheikh Hadrami bii nga xam ne moo la ñuy duppee góor gi ngeen bokk benn turandoo moom it ak Cheikh Jibril Cheikh Abdoul ku leen gis xam ni ay taaliba lañu ku leen ci xam ni am nañu wasiila ku leen ci xam ni taaliba yu dogu lañu yal na yàlla fay yal na yàlla fay leen képp ku fi teew ñu xam la ñu bañ la xam yal na yàlla faj sa aajo ñi fi ñëw moo xam kenn ku si nekk bu ñu fi jógee nag kenn ku ne baalu ak moromam kenn ku ne ne bàqu al moromam ñu xam ni am na fu nu yàlla dajale fu nu lanu dajale mooy se se kër Cheikh Hadrami wul Cheikh Arkaana wul Cheikh na Cheikh Saad Bou wul Cheikh Mahamad Fadil wul Maamin suuf si كفيني وصو سوبرك الله نمجاد بي سوف سوبرك الله كو خم اكو خمل بو رومبي ادبوني نفي رومب لي في نيوسي دوم ادمو لي في نيوس اي نيت دي فاشن اديو نغا خم ني دك بي دك بو برك الله تي نك ييمهول دك بو نغا خم ني دنج كو سوس دوم شادرامي دوم شادرامي توك في با لاكو ييمهول برك بي في نك ييمهول ني في داجي ييمهول ني في داج فاشن اديو sank sax Birame mi wax ni khayru nas anfaam li nas kon Chérif Mamoun mom hadith bobu daf ko déggoon muni duma ziar rek de damay def lu nga xamni da fay faj ajo ñep wér surtout wér gu yaram muni duma def ziar rek ndax Cheikh na Cheikh Saad bu moy sama mam yonent moy sama mam man na tok fi ni moy ziar waye dedet damay def fi lo xamni ni dafa am ndariñ ci julit yep wala sax ci mbindee fi docteur yi fi ñëw ku julle ku julul man nga fi ñëw faju fi تيزول بوب يبدا لك فكسي بامير جل جفر الشير محمد المامون جل جفر الشير محمد المامون وخير الشير محمد المامون سلقي جسنينكو لقدر ينجو جسنينكو لين دف سكو صوف جسنينكو سنيار ادي جرنين جف جرنين جف كجرنين جف كل يب نيو بيغنى سالي تنوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مي جامي يالا اغير مني مكباركيم يالنكو يالا واتشيين يال wax ne sax waruma yëkkati kàddu ci jotaay bi. di wax ni moom sax warut a yëkkati kàddu nag ci jotaay bii. ndax ñun ñun ñii nekk ci yoonu tariqa dafa am lu ñu xam. nee na ñun ñii nekk ci yoonu tariqa dafa am lu ñu xam. sama ñaari sëriñ ñoo ñoo ma ñoo ma na ñaari sëriñam ñoo ko séq nii ñoo ko wër. kenn ki sama sëriñam la papam la. شيخ الوليد دوم الوالد دوم اتقان دوم شيخ الشيخ صاد شيخ الوليد دوم والد دوم اتقان دوم شيخ الشيخ صاد الشيخ ملعينين دوم الشيخ بننا دوم الشيخ دي دوم الشيخ طالب الخير دوم الشيخ الشيخ ملعيني اك شيخ ملعيني دوم الشيخ دي دوم طالب الخير دوم الشيخ ملعيني نيوم نيوم جوخ ديغل نينا نيوم نيار ني نيوكو جوخ ديغل سيما واخ تي مو واخ نك واخ بي لو غات لي دون شريف ادرامي دينا واخ بي لو غات لي دون ان شاء الله nee na waxub nuyoo la. waxum kontante bu rëy bu ma am. ak waxu kontante bu rëy nag gu mu am. si di gis ñi may gis tout le temps di leen gis si jàkka ji ñu ñëw di fi wàccee kaamil. ci kanam yii muy gis tout le temps di leen gis ñuy ñëw ci jàkka ji di fi wàcce kaamil bi. di ñaanal suñu ay waajur di ñaanal di ñaanal suñuy waajur waaye di ñaanal jullit yi yëpp. muy Cheikh Malick mi nga xamante ne. muy Cheikh Malick mii nga xam ni. suñu waajur moom la tegoon teg ko ci loxoom ni ko at mu ne dee ko wàccee moo xam mu fekk ma fi wala mu bañ ma fee fekk ak ñi ñëpp di gis di nuyu di kontaan si gis xamante ne suñu maam di kontaan gis ci Cheikh Hassan mi nga xam ni suñu maam suñu maam la nekkaloon suñu maam la nekkaloon mu nekk mu nekkaat ak ñun tey jii di dox ak ñun li mu daan doxal suñu maam mu ñu koy doxal ñun di dox tey di ñu doxal lam daan doxal sunu waajur daan ko doxal sunu maam mu ñu koy doxal tey. Eh, démb rek ñoom maa ngi ko ma ne ko man taalibe laa taalibe du weesu mukk. démb rek mi ngi naan ko man taalibe laa taalibe du di weesu léegi léegi Cheikh Ibnu dañu ko baal ma xooli Cheikh Adramé mu ni ko maa la gën a woyef bàyyil ma jóg dem. ma ni ko ku ñu seexal nekkatul taalibe. cheikh bu xamantene dafa wara tok ñukay top top nek na cheikh bo xam ni dafa wara tok nak ñukay top top di di di ko di duñ ko gërëm waaye dañ koy ñaanal yàlla mu yàlla bàyyil ñu ay at yu bëri. duñu ko gërëm dañuy ñaan yàlla boor bi azza wa jalla yàlla bàyyil ñu at yu bëree bëri. mu nekk ak ñun fi nek fi sunu wajur di ñu gunge bi jaay sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di di nuyu cheikh cheikh yi xamantene ñom tamit ñoo wara jël kàddu ci kër di nuyu cheikh yi nga xam ni ñoo war a jël kàddu ci kër gi. ndax ñoom su leen neexee ñu organiser ziar def si cheikh Jibril wala cheikh Adraim bu ñu neexee ñu organiser ziar def si seeni tur ñoom ñoo ñii mu tur tudd muy cheikh Jibril cheikh Abdoul ak cheikh Adrame. man taalibe cheikh na bu leen yàlla booleel dong nee na moom mii taalibe cheikh na cheikh Saad bu bu leen yàlla booleel rek la. di nekk si liggéeyam. di nekk ci liggéeyam. wutuma lu dul loolu rek. wutuma lu dul loolu rek nekk ci liggéeyu Cheikh ni Cheikh Saad sama sëriñ kontaan ci man torop euh, lii xamante ne ñoo ngi ci jotaay bi di gërëm wàllu buddu yi nga xam ni ñoo ngi ci jotaay bi ñëw fii ci kilifa kilifa gi nga xam ni mooy seen kilifa nekk ci biir di Cheikh Aliwali Ndiaye ibnu Cheikh Ahmadou Ndiaye muridu Cheikhina Cheikh Saadu Abi kontaan si ñoom lool. Chérif nee na kontaan na ci yéen lool. yàlla fay leen bi jaahi nabi. yàlla fay leen bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam. nuyuwaale ñëpp ku ku juum. Chérif nee na ñu ngi nuyuwaale ñëpp ku lim juum fàttewuñu kenn. ñi fi nekk jox seen alal ñi fi nekk liggéeyal ñi fi nekk wax ñu lu baax ñi fi nekk teg ñu si yoon. yàlla moo am seen fay yal na nee na ñu yëkkati seen i jël seen doole. def ci bis bi jël seen xam-xam def ci bis bi yàlla na leen yàlla fay yonent bi ne woon man kaana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man kaana lahu maalun falyatasaddaq bi maalihi wa man kaana lahu quwatun falyatasaddaq bi quwatihi kon ñett yëpp Chérif tudd na ko kon ñooñu ñëpp nee na yàlla na leen yàlla fayal bi jaay Seydina Mouhamed ci barke bis bii nga xam ni ñu ngi koy defee fii ci barab bu tedd bii di barabu jama àllar ñu gën koo xam ci nimsaat àllar te ki ko sosoon sos ko ci jaamu yàlla topp yonent bi نك طالب الشيخ الشيخ سعد بو تشيخ الشيخ سعد دون يا ربنا من قدمنا بنفسه اجعله فوق اجعله في الدارين فوق جنسه كون يال نكو يالا ديفال ديفال كو مbolo بجاي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ني دي تجي دي واخ شيخ مالك مي خينا صح دودو تشوفال موم خول امول داو امول مك خينا نينا تشوفال صح امول داو امول مك يالا موي جيل بغي لا رك ديف كو سي yàlla mooy jël mbëggeel rek def ko ci xolub jullit. nee na cofeel boobu. xamante ne suñu baay amoon na ko ci moom. suñu baay amoon ko ci yow. ñun tamit dañ ko am ci yow. nee na ñun ñeetim cofeel googu la ñu am ci yow. waaye tey dañ ko yokk suñu baay yoroon jël nañ ko ñun tamit ñu nee na dañ koo yokk cofeel ga suñu baay yoroon jël nañ ko féetewoo ko. di la ko wax di la wax ne foofu fu mu teg nañ la fu ko raw. wax ni fa suñu waajur wa tegoon jël nañu la teg na la fa fu ko raw. di leen ñaan yéen ñëpp ngeen ñaanal ñu yàlla. di leen sàkku ci yéen ñëpp ngeen ñaanal ñu yàlla nag. yàlla sottil suñu lépp yàlla sottil suñu lépp bu ko sottilee nañ ko bokk ñun ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jëf Cheikh Al Adrami. wala ay réew yu bari alko nañ ko ñoom ku leen jiitu si seen si seen cër rek. lu doy waar dina dal ragal naa ni jamono ji ñu nekk sax loolu bokk na ci ayib yi mu am yi tax mu am ko kon nag ñun ñu ngi sant yàlla bi yàlla mayuñ ñu xam ni ñoom dañ leen war a jiital naka jekk ñu ngi asalaamaaleykum wa rahmatullah Chérif ñu leen nuyu leen sant ñaareelu wax bi mooy sant ñëpp di gërëm ñëpp lii ah ki ko fi sant ki ko fi sencoon yàlla def na tey gisuñu ko waaye mi ngi si xol ñëpp ñu fi toog te ba mu ko fi samp itam def naa loolu la si xalaatoon fexe ba alxuraan di jib si këram dajale ay nit nit ñi di si xalaat ba bu fi jógee moom ñu xalaat lool si moom yal na yàlla dolli ay leeram yokk yërmande si kawam ni kin siy teg mooy kii nga xam ni tey jii lu mu ndaw ndaw ndaw mooy suñu kilifa kii mooy suñu kilifa wax naa fi daaw ak daaw jéeg ni ku may ñaanal man mii Cheikh Adrame Diakhaté te xam naa li may wax noonu moom la Cheikh Djibril Diagne mi wax moom la Cheikh Abdoul wax ku ñuy ñaanal ñaanal ni ñu am taxawaay boo xam ne dinañ mën a taxawu ñii ba bu ñu taseeg seen waajur dunu rus ñun loolu rek mooy suñu liggéey loolu rek mooy suñu liggéey loolu laa laa ñaan yàlla mu may ñu ñu am taxawaay bu mët sëkk ba li nga xam ni bàyyam bàyyi na ko fi ñu mën a ànd ak ñoom gunge leen ba ñu def ko ñu ko war a def loolu ñu koy ñaan euh, euh, euh, jullit yi ñu ñaanal ñu loolu ñu teg si itam Cheikh malik mii moom yàlla dafa def man dafa nekk sama xor rek dafa nit ki xam nga am na loo xam ni kenn du ko expliquer dafa am ñoo xam boo leen xoolee rek da leen di bëgg te yàlla mooy def loolu moom wóor na ma ni ni ma ko ni ma ni ma ko buggee noonu la ma bëgg doom la ma def xarit la ma def wóolóore la ma def yal yàlla guddal fanam wéra cëram wax naa ko fii ni ko loolu Chérif de wax bu soobee yàlla ñun tànk ñu ngi dund loolu duñ ko dindi waa kër Chérif duñ ko dindi ñun duñ ko dindi kon nag lu ñu la dénk la ilaa yow mi din euh, li si des mooy Cheikh Ibnu ak waa Halaar parce que bu ma nee Cheikh Ibnu rek waa Halaar itam euh, si leen bokk Cheikh Ibnu taxawaay bi rafet na Cheikh Ibnu du ñooru kenn Cheikh Ibnu saa yu nekk nga koy nga koy téléphoné saa yoo ko téléphoné mu jël jël téléphone lu mu guddi guddi dina wuy bari na loo xam ni dina sotti fii Cheikh Ibnu mi moo koy sottal te kenn du yëg. bari na lu ñu fiy def loo xam ni ñun la waroon Cheikh Ibnu moo koy moo koy def te kenn du yëg kon yal na yàlla guddal fanam wéral cëram yokk taxawaayam kii nag moom buñ ko gisee man sama turandoo laa gis parce que man li ma wóor mooy sama turandoo moo ma uuf tudd ma tudde ba boppam mais kii ma nga fa woon kii moom foo fu Cheikh Cheikh nekk ma nga fa woon kon kay bi may tudd ma nga foon damay sant yàlla bi ma koy gis ba tey sama kanam waaw loolu loolu chance bu rëy la te man nekkatuma xale waaye moom mi wóor na ma ne teew na bi muy bi may tudd ma yàlla yàq yàggal taxawaayam ba mën ñu may itam ñuy roy si moom parce que taalibe àqan la taalibe li nga li nga doon wax li ma doon wax si fajar tey ma doon def kii kii daf ma si raw fuuf daf ma si raw fuuf euh, Cheikh Biram moom loo ko loo téyewul loxoom mu def ko loolu mooy taalibe yan yàlla defal ñu jàmm yan yàlla yokk taxawaay yi yan yàlla wéral cër yi yan yàlla yokk wërsëg bi lii nga xam ne ñu ko fi def yan na ko yàlla saxal te ñu bañ a teggi yoon wi ba bu ñu bu ñu fekki kële nga xam ni moo ko sos du duñ si am kersa euh, loolu rek laa bëggoon wax si ay kàddu di leen gërëm di la sant wasalaam